bàyyi xel Tawfekh production tey ñu ngi si ñaan nga xamante ne moom la ñuy taxaw nag ak kenn ci membre daara Hizbut Tarqiyyah muy El Hadj fas yéene ko laaj ci Serigne Atou liggéeyam ak ni mu taxawoo ndaw ñi ak ni mu leen tàggatee ci Serigne bi mu fas yéene ko laaj asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu man doon kenn ci gone Hizbut Tarqiyyah di gën a santar Sëñ Tuubaa rek ci bi nga xamee ni yàlla dogal na ñu nekk xale Sëñ Tuubaa boole ñu ak Aatu mu toq ñu def ñu ci ñun loo xam ni li ma koy wax daan naa ko wax nee naa ko bari naa fu may dem ñu ma fay jox ay prix boobu dama la koy nangul waaye prix yooyu yëpp yow yaa moom ndax man nu ma mën a mel ba fu ma dem ñu estimé ma rek ginnaaw yàlla si jëmm ji la tax euh, moom liggéeyam mook asamaana yam ku ko bañ a xool moom maam da dul am bët waaye foo doxee gis kuréel ginnaaw yàlla jëmam ji la foo doxee gis ku yor bàyyi laat ginnaaw yàlla jëmam ji la safar gi ñuy dundal képp barke Cheikhul Khadim moo ko daan dundal ànd ko isbitar xëy ya nekk Sandaga ñu koy def ba mu tas ba ñëpp safar waaye safar moo ko ko daan def màggal Touba pouvoir bi mu am ak fi ñu ko yëkkati di ko indi 1995 bi ñuy wax màggal gi ah, di ko woote ca Masaalikul Jinaan muy ACN boobu boobu nit ñi jaaxle nañ ñii li ñuy wax lan la te yam daan wax yëpp egsi na tey jii nii. Sëñ ñaar fukki at yàlla dogal na maa ngi ci daara ji ànd koog moom muy ni ko ñëpp waxee rek gannaaw njullit gi taalibe gi lépp mat na waaye li ci gën a yéeme ci moom mooy rigueur ak pas-pas ñun ñi ñëpp kenn koo gis bañ na ko ba bu ñuy wax sax dañ koy imiter ndax rigueur boobu nga xam ne daf koo def ci ñun ak euh, dogu ak ak wéetal sëñ Touba ñun tey suñu xamee sëñ Touba suñu mënee wéetal sëñ Touba suñu jë mën am yaqin ne sëñ Tuubaa nangu loon suñu taal bi sëñ aatu lan ko war a delloon njukkal. waaw salaamaaleykum mbokk ko yi am ko jullit yi waaw ñu ngi ziar ñëpp waaw di ziar sëñ Mountakha Mbacké Bassirou waaw mu yàgg fi lool te waa wax sëñ aatu moom waaw dina yomb du yomb waa ndax man moom fi ma mën a waxee rek mooy ñun ñi nga xam te ni maanaam lépp lu culture moo ko si ñun waaw ba ñu nekk ndaw la ñuy suuxat bañ ne bañ nekk mag. waaw mën nañ ñu tey ji fu ñu dem si àdduna bi tey di jàng di wane suñu métier moo ko def si ñun waaw maanaam tey ji man mi si at tey ji maanaam képp ku jaar si moom am nañ wax am nañ wax njukkal waaw mais ñi ngi bu baax di ñaanal yàlla suñu borom di ko ñaan Serigne Touba waaw fi mu jugee ak fa fa mu jëm maanaam jël gën a fi mu jugee waaw ñi ngi ziar bu baax di ziar mboolem daal istraxee di ñaari seen gis jóg waaw yàlla na yan bi oyof maanaam li mu yéen liggéey Serigne Touba yàlla na ko yàlla suñu borom mottali si damay wax toujours membre Hizbut membre Hizbut Tarqiyyah bu nekk loo liggéeyal yàlla aatu am na ci pourcentage te loolu mooy li am ndax moo nu defar moo nu formaté ba nu kennal sëñ tubaa li ñuy jàng jàng jàng tubaab mooy suñu référence ci sëñ Touba moo taxit bisam bii keroog ku ñëw fii di nga xam ne njàngale moom mi nga xam ne moom la dëkke woon da koo jàng da ko ànd ak ba keroog ba muy dugg bàmmeel mi ngi jàngale ndax ba nu jógee ci armeel kenn ku nekk. la yoon sa yitte lay sa yitte ak sa pas-pas mooy bis bii mënu ma koo am de mënuñu ko am na moom waaye ñu am lu ko niru te lool la ñu aatu jàngal ne fexe leen bis bii ma am ku ko mënta amit nga am bis bu ko bu dend ak kon kooku moom mooy koo xam ne dee su ko fàtte du suulu ba bis penc ndax jëfam day law ba bis penc fii ak jàkkaarloo kanam Sëñ Tuubaa rek jëfi Sëñ Aatu day tege li mu defar ci nit nag moom àdduna la ndax loo fi gis ñuy dox ci yoonu murid wii nii nii boo lañ bëtee rek. fekk fa ñu ne ci isbu tarxee wala ñu fa jóge te fii ku fi xas jóge mooy la mu waxoon 1995 dañu jël bopp xar ko tay dugg ci sëñ Touba dem di jiite loolu sëñ Touba def na ko maanaam li may wax naan jàmbar yi ne fii moom saa bu ñu fi fu ñu dem doon fay seef ndax xel mi ngi jógee fii te loolu moom mooy fitam wax goreem nga bëgg sëñ Touba diggante sëñ Touba nag moom mosu caa xajal kenn kenn kenn kenn kenn mos naa ko wax ni ko dëkk bi moom fi laa juddoo xaw a jaxasoo xaaju dëkk bi waaye yow rek lañ mës a joxe pàkk nga joxe ko ba mu jeex amoo ci sa doom amu ci man ko keneen koo fi gisul bàkk moom bu daggee boppam day dëggal pénjam di xaaj réserve di ko jaay say réserve rek fi des ci dëkk bi dëkk bi fu mu yow amooy réserve kàcc su ndaw si bu ñu waxee am na juróom benn réserve da nga naan déedéet loolu mu koy sàmm ba tey di ko sàmm Sëñ Tuubaa kon ñun moom dañuy wax yàlla nañu seexul xadim taas ci barkeem ndax kenn ku ne gis na ko ni ko gisee daal ñëpp ko gisandoo waaw dinañu naqari nag ndax demee nii waaye nag sant nañ Tuubaa ndax def na ci ñun loo xam ni wax dëgg fa yàlla fu mën a tëdd xelam dina dal ndax ñooy ñun ñoo xam ne duñ ko war mukk waaw ndax fa mu tegoon tànkam rek fa ñu teg sañu tànk loolu daal mooy li ñuy sante di ñaanal sañ yuusu xam ni moom na xelam dal ndax yan mi day oyof waaw dina oyof lool ndax moom nii mu mel ñu mel noonu ay junni junne ma topp ci ginnaam te ñoo bokk benn pas-pas muy liggéey sañ Tuubaa di ñaan suñu borom mi ngi xam ne tëlewul dara ñu mu yokk ay dara jaam